damay romb ñu ma koy wax dama waxal ñu ci télé ba lii ak lii ak lii ci suñu combat tey mooy ñii nañ fi jóge parce que mm. euh, nu ngeen koy waxee nekkuñu ci yoon mm-hmm. concurrence déloyale dañuy nangu concurrence concurrence déloyale dañ koy nangu quoi concurrence dafa am solo mais bu positive bu tegu ci yoon jaar ci yoon bu loyal waaw bu loyal léegi yow wax nga amélioration ñoom maanaam indi nañ lu bees affaire yooyu d'accord nag lu bees dafa am solo waaye nag Olof Ndiaye lépp lu bees day neex. neex na bees na waaye neex na. maa ngi ñëw maa ngi ñëw bees na neex na. waaw parce que parce que waaw boo fay dugg bi yëpp mu am traçabilité amul tax zone noor yu am clim. Hmm? ak a am. non question. clim bi sax mais li nga sé sécurité ba tey am na te ci ñun la ëppee. Hmm, hmm. baal maa ngi ñëw. allez maa ci ne. <laughs> waaye neex moom def na ko. yow yow nekkoo ci. <laughs> Euh, raxasin moo gis ndox la woon. raxasit moo gis ndox la woon. xam nga da wax ni eh, amélioration bi d'accord naa am na solo trop nag wax dëgg yàlla parce que dañoo bëgg a nag. ci lu baree bare. surtout suñu secteur bi. Mmh, mmh, mmh. waaye dafa am insécurité bu nekk ci seen biir ñoom ñoom bi ñëwee fii. Sénégal. la leen taxoon a jóg parce que ñun euh, doomu aadama moo mel noonu koo tëggloo or mu rax ci përëm dañuy lu seen ñëw ndax bu ñëwee ñun la ñëwal. parce que tamit daf ñuy dimbale ku mel na man di xeex euh, salte ak réewande ci secteur bi au moins am na ci koo xam ne pour ñëw na pour euh, implanté wu ci réew mi pour wan ñu na nag nag nii baax na donte am na ñoo xam ne ci ñun fekkoon nañu ci ci jub ak jubal ak bëgg lu baax. ma dooleel la si ta même tuuti nga ne ba ñëw. da leen taxoon ko wax mu tëggal la përëm. maanaam dañoo bàyyi li leen fi woon yokk ci leneen. maanaam parce am na ñenn si ñoom ñi ay service de livraison lañ doon def. léegi moom laay ñëw rek xam nga ñu bëri ñu bëri moo tax man la toujours euh, dafay neex boo laajtee rek ki ni ci neex wax la li ci biir am na ci loo ci dul xam mais am na loo xam ne ñun ñoo ko xam parce que ñun ci biir nga euh, taximan am na droit dem def jël yàngoor di ko def taximan am na droit di ko def mu dem adhéré gis nga ci ay taxi zone yàngoor dañ koy rafetlu parce que nag ñoo ko war a def xam li tax parce que pour nekk euh, chauffeur taxi dafa am ay kayit yoo war a am en tant que chauffeur taxi. Mm-hmm. oto bi dafa am lu mu war a am li chauffeur bi war a am mooy livret de conduire tam boo amul nationalité war a ko am de un war nga am nationalité sénégalais am casier judiciaire bu verse et cetera et cetera doo ko am livret de conduite mhm. livret boobu mooy wan na yow sénégalais nga am nga droit pour taxi Sénégal même si je suis pas d'accord avec cette day am day faral di am. CEDEAO lañ nekk. d'accord mhm. waaw. xëy na libre circulation d'accord dama lay wax li am. dama mhm. xam ne lii moom moo jaadu. léegi nag livret de conduite bi mooy wan ne yow war ngaa taxi. Mhm. d'accord beneen bi mooy dañuy dem ba ci biir nga am assurance assurance bi lan lay jëriñ dafa am assurance particulier am assurance transport. bokkut. assurance transport mooy couvrir le client en cas d'accident. di couvrir oto bi te du couvrir chauffeur bi beneen bi mooy da ngay da ngay fay droit de stationnement en tant que chauffeur transport taxi waaw ki ñëw di def yàngoo walla def leneen parce que dañoo commencé tuuru Sénégal tuuru ci biir réew mi parce que nag secteur transport moo nekkoon loo xam ne ni naan lu foy foy la fu waaye jógee ñëw njugu moo tax kii nekk ci bureau liggéey secteur yëpp la ñëw non secteur yëpp léegi nag comme que seen secteur lañ mën a war leeral li ci ne mm. nekk ay yàqu-yàqu ba tax ku mm. nekk fu waay jógee ñëw dugg dafa am benn insécurité bu ci am insécurité bi lan la lan nga la noo insécurité bi waaw mooy ku yor particulier dem dugg yàngoo ñu ba ko parce que kii jaay produit am moom li jëntiwul ki baax ak ku bon day jaay ki jënd yor xaalis di jaay kooku lay wër te sa ki yor particulier li ma yëpp waru ko am munu ko am parce que chauffeur particulier la assurance bi particulier la bu waxoon assureur bi man damay def transport dana ko no kaay amoo licence pour def transport te mi ngi dugg biir yango ñëpp gis nañ particulier yi ay oto yu bees particulier yi def yango n'ont pas le droit parce que amuñu licence pour def transport urbain. tout à yaa ngi may dégg. Mm-hmm. yow client bu ci dugg yi bokkul waaw ba pare yow ba pare yow ba pare ba pare yow nekkoo ci sécurité yow ku ci dugg yow yaa ngi xool confort mais amoo sécurité. parce que boo amee accident mais il faut dire ça ministre. non saa ñi ngi wax di wax di wax parce que tamit mun bu ñu amee occasion pour jàkkaloo ministre bi danañ ko wax mais yéen li ngeen def ni lu am solo la. est-ce que ministre mënu ko déglu est-ce keneen mënu ko déglu des fois dañuy wax ci secteur loo xam ne des fois ñu koy wax li ci xew. Mm. ñun bu ñu koy xeex xeexuñ yàngoo boppam. mais ni muy liggéeyee la xeex. sécurité sécurité bi maanaam tey da ngay gis ay bagages yu réer de boo déggee ñu naan la non ñoom c'est digital dañuy xam waa ji fu mu toll fu mu nekk mais du ñëpp lañ mën a euh, du ñëpp lañ mën a kii. parce que identifié.